toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. waaw merci beaucoup donc euh, di am mbégte bu baax ci initiative bi nga xam li nga xamante ni may temps de parole ma mën a jàllale sama message parce que tey ci premier mai bi de bo boo xamante ni donc ñi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk da ngay ñëw pour wax say doléance wax li nga xamante ni mom nga bëgg ak li nga bëgg ci sa liggéey ak yok yok yi nga ci bëgg

Nous, sénégalais ne ñun mën nañ ko waye ñun ñi nga xamanteni ño nek ci secteur bi su suñu nous amuñu kuñ ko fajal comme son excellence monsieur le président de la république mon moment def chevalier de l'ordre national du mérite boobu ba légui ñing ci terrain bi di daw tay dafa mbir mu am solo buma dab ci sama te ak yonent bi donc ci ma tableau j'ai besoin de 30 millions parce que besoin familial la kër gu ma dëkkoon la borom dañ koy mirage dañuy jaay kër gi te exactement aw possibilité pour gagner 30 millions jënd ko xobet xobet mais kër gogo mayoon na ma ma am possibilité éducation environnementale yima ma def fala ko doon defee mais may ma tamit donc limay may ci walum recyclage foofu la koy defee tay may na ma tey ji garab yi planté ci biir dëkk bi yëpp foofu la koy defee loolu mom motax ma

bëgg naa mu jàppale ma ci ndax ma mën a wéyal sama liggéey ak xel mu dal. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.